asalaamaaleykum mbokku internetu Sunugal 24 mbégteeg bànneex lay daal di doon saa su ne topp gi ngeen ñu topp waaye rawatina ànd bi ngeen ànd ñun si suñu plateforme bi yaa ngi bii nga xamante ne nag moom mooy Sunugal 24. mbégte la nag ak bànneex saa su nekk nag ñuy dem ci kenn ci kilifa yi fa yéene waxtaan ak moom xam-xamam waaye tey dañoo dem seeti koo xamante ni ko yàlla baaxal la wàlliwu la ku mën li muy def la waaye comme xam-xam la moom nag tey boo dee wax ñaan doo ko ci génnee ndax wax dëgg fi yàlla bu ñee ñaan maa moom tax ñu gën ko xam ci Serigne Ass Mbacké Serigne As Mbacke nag moom mooy borom Daaru Salaam santé cabine boobu nga xamante ne tubaarkàlla Sénégal gi yëpp xam nañ ko mu yëngu ci wàllum faj ah lii di émorite ah li nga xamante ne moom mooy impuissance sexuelle yëpp da ciy daal di dox moom nag dañ koy bàyyi mu nuyoog internet suñu gaal 24 yi balaa ñu seq moom waxtaan bi ñu bàyyi ko mu nuyoog internet yi Serigne As maa ngi lay nuyu. waaw. Ah, auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim. wasalaatu wasalaam ala asrafil mursalin sayidina muhammadin wa wala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisaani yafqahu qawli wàccal kalaami raasidan wa mursida wa fikrati nawwir wa arsida mbokki asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit fu ab jullit nekk si àddina bi ñu ngi lay nuyu di ngeen leen di nuyu di leen siyaare di jël nuyoo beeg siyaare bi di ko teg si momo ak sa nga àndal yëpp waa 24 di leen jàmm fii si daara ji ñu fas yéene seq ak yow waxtaan woo xamante ne wuy jariñ doomu aadama yi la di ñaan daal sunu bopp subhaana taala may ñu leeru xol ñu mën a ubbee li nekk suñu xol ba tasaare ko si àdd bi yëpp. ayca mi ngi noonu tey nag ñu fas yéene tàmbalee ci li nga xamante ne moom mooy waxtaan bi euh, di wàllum seet balaa ñuy ñëw ci seet jamono ji ku nekk xam ne ne seet euh, ku nekk ngi naan maa ko mën maa ko mën. waaye da nga doon koo xamante ni yow boobee ba léegi daanaka lu ñuy gis ci écran yi bariwul sax euh, bu ñu bëggee dëgg-dëgg nga faram-fàcceel ñu lan mooy seet ak nga wax ñu tamit yan anam ngay seetee. waaw moom man noonu li may faral di wax jamono ju rek seet moom nit ki gisut nit ki gisut mooy seet ñun nag moom sunu dogal dañuy gis waaw dañuy gis buñ ne dañuy gisit maanaam du caagu nit ñëpp lañuy gis seeni mbir waaye nit koo xam ne am nañ si moom ndigal koo xam ne am nañ si moom ndigalu lasraar maanaam listixaar nga jox ñu sa tur ak sa turu ndey mooy sa turu waajuru jigéen ñu am si yow ndigal wallaay lancim say mbir dinañu leere ni suñu juróomi baaram yi leere ndax loolu jagleel suñu borom la gu ñu suñu borom defal liggéey la boo xamante ni ndax lu ëpp si sëriñ si léeg da nga gis ñu naan seet seet seet moom yëpp a baax moo moo xam ramul bi wala seetu kuréel bu man di doon waaye listixaar daa doon doo xam ne daa gën a wér loo mën gis listixaar waaw kon suñu moom daal dogal na fi nii ne toll nañ si si listixaar tolloo goo xam ne amut mboolem nit ki képp koo xamante ne suñu moom dogal na ñu am si yow ndigal ñu am si yow ndigal euh, listixaar la say mbir wallaay boo xëyee da nga jàpp ne da booy dunda ñu ànd yow ndax dinañ la leeral say mbir yëpp incha allahu taala waaw. nan nga gisee li nga xamante ne moom mooy mara yi nga xamante ni ku jug rek dañ naan naa laa ñaanaata du la seet en tant que kilifa nga doon xamante ne bi ñu la xamee ba léegi ci ñaan nga yëngu nan ngay dégg genre wax waaw xam nga àddina moom dafa bindoo noo xam ne ku si nekk ni nga ko bëgg a koy dundee te liggéey bi ñuy liggéey dafa bari fi ne lu si lu si lu si lu si lu si bokk te lu si lu si nuru te bokk si waaye ñun de sunu liggéey ni ñuy liggéey moom amul kenn nit ku ñuy mën a ñaanal ku ñuy mën a ñaanal lu dul dañoo seet sëñ bi ba gis ko ba xam si dara ndax nit ki bala nga koo mën a ñaanal il faut nga xam nit ki ban façon nit la ban taxawaay la moo xam si côté ñenn mënu joom bi wala ah, ah, ilmu adat wala xam-xam bu mën di doon mu mën di doon nga xam ay saraxam xam ab taxawaayam xam biddiw ban façon biddiw la ban bis lay dox yan heure nga ko war a liggéey bu dee noob la yittewoo dafa am heure yoo koy liggéey bu dee musaale yittewoo dafa am heure yoo la koy liggéey bu dee mbirum mbirum euh, ubbeeku yittewoo daa am heure koy liggéey kon nit ki si jëm mënoo koo ñaanal man mbokk mënoo mënuma koo ñaanal li fekk damaa seet ay mbiram daa damaa seet ay mbiram su ma seet ay mbiram daal su ma sama nee dara dama naan naa la su ma si nga seetal nit sax ba noppi doo am ndigalul ñaanal ko ndax da ngay seetal nit ki ñun si alxuraan la ñuy yëngu ak si sunguf man man nañoo seetal nit ki si jëmmam fekk loolu du ko ñaanal du ko du faj ay mbiram moo waral léeg-léeg di nga nit koo xamante ni day dem si ab sëriñ ñaan lu ba sonn wala dem si ay sëriñ ñaan lu ba sonn du gis dara fekk fa la mu war a moom la ñaan loogut moo tax léeg-léeg ñun dina ñaan ni ba noppi jox ko ndigal ni ko eh, diw moo la war a ñaanal moo la war a ñaanal waaw ñu moom noonu la suñu mbir di doxe moom la ñu la amaa nag lu keneen lu keneen di defit loolu moom eh, ku si nekk rek àddina moom mooy doxe noonu ndax suñu borom sax bi mu bi mu ñu sàkkee ni jaamu leen am nañu ko jaam am nañu bañ am nañu ko bokkaale kon loolu moom euh, la si des moom nañ ko bàyyi si loxol borom daal waaw. ayca mi ngi noonu euh, mu doon koo xamante ni wax dëgg fa kenn dootu ko présenté àdduna muy Serigne Ass Mbacké euh, nañu dugg ci li nga xamante ne mooy mooy wàllum nopp dañ ko yóbbu lool lool lool boo waxee rek mën na ñu naa nopp 24 heures ñëwuñu ci wàllum nopp. waaw nopp moom daa doon loo xam ni yomb la yombut waaye man de bokk na sabab liggéey li gën a yomb si man muy noob wallaay lancé moo gën a yomb sama liggéey ndax noob dafa am tur yoo xam la siy dox léegi nag il faut ab sëriñ mënut a jékki-jékki rek nga moom moo ñëw si yow nee na noobal ma sama digganteeg faat wala sama digganteeg nday ko déedéet il faut ngay liggéey tur wi nga nga tërbiyo tur wi ba nga xam ne saa soo ko soxlaa ndax yow mi nga xam ki nga xamante ne ki day day teewu aw fas sax day day tàggat fas yi ba fas yi miin ko saa su ko bëggee war war war ko dawal saa soo xamante ne yor oto da nga koy fexe maam oto dee da nga amoo oto amoo fas bëgg-bëgg dem boo duxul say tànk doo dem boo xutal say doo xutal say tànk dem kon aw noob day day loo xam ne nit ki day am aw moo xam fasoo tur yi si eh, dox bëri na waaye nga am tur yu tërbiyewu ko ba nga xam ne saa su nit noobee nga jël turoo daggal ko ko xaatim xam heure ba nga ko koy daggal wéddal ko ko wala yàlla see moog bal pistali ñooyam mu ñoo ko waa Pisala ñoo yem man de waxuma la comme nit ku nit comme nit sénégalais sénégalais moo gën a yomb noob sénégalais moo gën a yomb noob moom si xeet yi wallaay ancien sénégalais moo gën a yomb noob si xeet yi que dafa am nu leen nu ñu leen di jàppee nu leen di mooy sénégalais waaw léegi nag bu dee ñi nga xamante waxuma la mooy nasaraan wala ku nasaraanoom incha allahu taala am na si turu ñuy liggéey boo xam ni moom man ñetti fan laay appeler ki ñun nag dañ koy liggéey man ñetti fan yi incha allah taala bu dee ko bëgg mu woo ko mu woo ko su dee ku bëgg mu ñëw fu mu ñëw fu incha allah taala mooy kër tànk ba ñu war sa kër incha allah taala waaw loolu ñu. wallaahi lancim loolu kay euh, euh, euh, émission waroon naa doon direct bu ko doonoon kon Modou Modou si yëm ñoo mën a seede loolu ñoo mën a seede loolu ndax wallaahi lancim nit woo na ma ni ma dafa am benn tubaab su bu soxnaam la woon sax waaye day jékki-jékki woon ko ginnaaw. ba ma wooy ne ma semaine bi ñàkk naa si lu mat 500000 wala lu mat téeméeri junni lii la ma wax wala na si man la ma koy laaj ma ko laaj wala na si ba fini nii ak alxuraan ji ma yor ba fini nii la ma war la man sa matalugu ko matalugu wala na si ngir maanaam man maa doon koo xam ne damay jàpp ni doomu aadama dañ leen war a dimbali ndax dañoo jaaxle ba soxam dogale ñu liggéeyal ko loolu wala na si fini nii moo sa maa sa jàmmam moom noonu la ñuy liggéey lii ñuy liggéey nii ay ñu dugg si ay caaxaan taxul ñu dugg si dañoo sonn ba toll fi ñu toll kon maanaam doomu aadama nag moom benn mooy maanaam mooy waman saa wala waman saa fala kufur ku neex gëm ku neex nga weddi waaye nag moom ku jëflante ak ñu gëm ñu moom loolu assuré nañ ko moom moom ku jëflante ak ñun di nga gis te boo ñu gisee di nga gëm insha allah taala. da ngay yi nga xamante naan 24 damay nopp te damay jàpp maanaam moom ñun moom duñu weddil kenn dara wax dëgg fa yàlla ndax xam-xam dafa yaatu xam-xamam dafa yaatu waaye ñu ni ñuy liggéey daal sañ na ni ñun nii la ñuy liggéeyee nii la liggéey bi doxee waaye amaa nag dañuy moomoo day ñëw si ñun ñu ne ko sëñ Mbay li muy def baaxut wala sëñ Alaay li muy def baaxut déedéet ñun moom wax dëgg fa yàlla duñ weddal kenn ab xam ndax yàlla kat kum neex kum kum way safi man saa suñu moom day jox ko ko soob waaw day day jox ko ko soob kon duñ weddal kenn ab xam-xam waaye nag nañuy fexe ba ñun ñuy liggéey ñun sëriñ si nañu fexe ba di ko teg siw yoon waaw dañuy fexe ba gën di sellal mbir yi di ko teg siw yoon waaw protection ay ci ngi noonu mi ngi noonu moom la ñuy waxtaan boobu léegi di Serigne As ah, wàlliwu Serigne As Mbacké euh, dañuy ñëw ci li nga xamante ne nag moom mooy wàllum papier ndax dëgg fi yàlla bari na suñu euh, nekk Europe euh, dégg naa papier moom wax dëgg fi yàlla sa xalama du ci laal suuf ci wàllum papier waaw doomu aadama bu sañoon ndamu ndamu si moom doomu bu sañoon na ndamu yëkkati loxo ndamu wallaay lancé bi ñu ndamu si ak alxuraan ji ñu teg suñu liñ si yàlla may ñoo xam ni ñuy jëflanteeg ñoom fii ñun lu ëpp suñu liggéey sax du fii Europe la ndax européen boo xoolee moo xam fu ñu nekk moo xam Europe la ñu a mm. am na 40 ans mos am carte d'identité bokkut ak réew yooyu mm. waaw kon ñooñu li waral ñuy gën ëpp lu ñuy ñaan la mooy seen seen réew yoo xamante ni bu fa bu ñu amul ay papier dara du fa dox waaye nag su dogal na maam kuñ fa jëflante amul kuñ fa jëflanteel kuñ fa jëflanteel te amul lam te dañ ko jox ab ab ab ñun ñu noonu lañ noonu la ñu doxee bërki démb rek moo si am benn waay boo xam dafa nekk euh, Espagne woo ma wax ma ay mbiram euh, ni ma ni ma euh, kayit dafa ko mu dugalaat ko génnoon mu ko heure ba kii xam naa bu bu gisee bu ma gisee dina xam li may wax. wallaay lancé ma moo ko waxee bis ba ko defaree sarax bis ma ko tàmbalee wallaay lancé ma xëy suba moom ma envoyé message ni ma kii yow ma def kon ñun moom kayit moom suñu si ndamoo na ab doomu aadama su sañoon a ndamu ñu yëkkati suñu loxo ni kenn sutuñu si waaye nag waaw birum kayit birum papier moom moo xam ki nga xamante ni dafa bëgg dem dafa bëgg a tukki dafa nekk Sénégal bëgg a tukki wala ki nga xam dem na ba àgg am fa jafe-jafe kayit waaw waaye aw yoon moom li li ab tukkeet li may faral di wax léeg-léeg nit dinañu ko wax ñu xool ko fekk tukki ba gënul si moom ñu ne la ah, boo ko mënoon a kii de moo gën léeg nga nga xool ko ñu ne la jamono ji wër a génn réew ma waaw kon ñun moom noonu la ñuy liggéey moom amul lenn lu ñuy liggéey loo xamante ne lu ñu jël engagement ba dañ si dañ kii rek bu yeboo nga hmm. lépp si kurus lañ ko teg suñ lépp moom kurus ndax kurus kanam doo nit du man ko waaw suñ lépp si kurus lañ ko du xëy xëy ma man man kurus dañu dañ dañ koo tërbiyewul sonn si daj si lu ne ba toll fii ñu toll waaw moo tax daal am na si loo xam ne moom dee ko dóor lu ñuy wax ndax ñun kat nañuy bàyyi ñuy wax ñuy jëf ñun ndax ba xam la maam Seen ëllëg ba xam ëllëg yàlla dina fay wax bàyyi jëf ndax mbir lii ñuy liggéey nag nii dañ koy liggéey ngir jëmmi yàlla lii ñuy defit mooy eh, lii ngay gis ni maanaam daanaka léeg-léeg comme télé ñëw seet si ñot lool dañoo toll jamono jamonoy communication lañ toll ku yor lu safaanu comme que yaa ko mën saam si mbedd mi kon ñun ñu yor lu baax kon il faut ñu teg ko si mbedd mi ngir jullit ñi jariñu si loolu rek la waaw waaye boo xoolee fi ne léegi da nga gis euh, sëriñ bu nekk si écran bi nga gis benn commentaire koo xamante day jóge fee wax ko musiba te loolu xamul ni ma nga def musiba moom moom ko def xamul ni ma nga def musiba lu ñi léeg-léeg di nga moo tax daal nañ teg mbiri si yoon waaw ñu ñëw sa kër balaa ñu duggaat ci li nga xamante ne moom mooy wàllum ñaan gi fekk fu ku tedd ki di ni da nga ko doyloo ba pare tamit euh, sëriñ as paquet euh, bëgg nañ ñu ñëw tuuti rek ci wàllum sëriñ balaa ñu duggaat ci wàllum ñaan yi ah moom moom boo ko tuddee rek Eh, da ngay da ngay da nga may jot ndax daam mi moom dafa am fu mu toll si man hmm, dafa am mu toll li ma defal kenn dama ko defalut te kenn dama ko defalati soo am dogalee ñu bokk sax ñu bokk si ñu nag duñ pare sant suñu bopp ñu gis xam ñu suñu boppam dogal ñu bokk si ñaari ñaari yoon suñu waajur góor sant mbàkke sant mbàkke waaye nag ñun ñu dikk la ëpp solo mënoon nañu sant la ëpp solo si ñun mu suñu xol ñu jox ko ko kon kooku mënuñu see sori waaw waaye mbooleem li nga xam ne moom lañ moom moom lañ taamu ab sëriñ di ko jëflante nit ñett ñu ngi ci ndax lan muy jàppale doomu aadama rek te loolu lañ fas yéene incha allahu taala mhm. waaw kon daal moom nañ bàyyi noonu <laughs> waaw ci wàllum la ñu daal di dugg ndax dafa mel ni léegi jamono ji euh, xale yi dañ ko dañ ko dañ ko dañ ko bërgal ci wàllu muska muslaay euh, bëgg nañu nga ñëw ñu tuuti ci wàllu muslaay parce que doon na loo xamante ne jamono ji gars yi yittewoo nañ ko trop trop trop ak élection yi ñu jëm waaw ndaw lu bëgg a doon dara mhm. lu bëgg doon dara ëllëgaa watana jamono yi ñu toll wutal musalaay ndaw lu bëgg doon dara ëllëg wala wala wala jamono yi ñu toll nii wutal musalaay wutal musalaay rawatina jamono jii ñu toll fii réew mi toll nii wallaay ndaw lu sa bopp oyof jafe-jafe nee na la gàllankoor ndaw lu sa bopp oyof nag waxoon naa leen fi ay jamono ni leen nit ku si jamono ju wi at mu ne war nit ki war naa xam saraxam ndaw li war naa xam saraxam xam ban foo sa sarax la mu koy def mu koy def waaw kon nit ndaw loo xamante ne bëgg ngaa mucc mm-hmm. bëgg ngaa mucc fi ni nii wala bëgg ngaa tekk dara fi ni wala bëgg nga say mbir du dox fi ni nii mm-hmm. da ngay fexe maanaam ba ba ba wut musalaay waaw ndax lii gàllankoor doomu aadama wax naa du si gàll doomu aadama doomu aadama rek déedéet mm-hmm. du du du du waaye leneen lii gàllankoor mooy jinne yu bon yeeg yi saytaan yu bon yi dafa bëri fi ni nii te te yàlla xam na ko ndaw lu si mutu musalaay ah duma ne say mbir du dox de waaye du gaaw dox de waaw ah, wala gàllankoor dina la yomb lool. waaw hmm. ah, moo tax nag. du yomb de. waaw du yomb de. Hmm. am na fi ndomb gu ñuy defar goo xam ne moom hmm. euh, të lañ koy wax të. waaw të ñëpp të lépp. ndomb ko ko am bu soom dogalee bañ defal ko ba nga tëggi wallaay la sim jurut maanaam ab sëriñ bu xam dara su du yëkkati euh, pilimam di la xaatim. waxoon duma laak maanaam boo xooytu cat ak xeeti mbirum saytaan yooyu. waaw ndomb ko su moom dogalee ba doomu ah, ba ba ba ndawle am ko. loola dafa am atam ñaari ndomba la yoo xam benn bi nit ki du ko takk mukk li fekk amut yenn at yi bis tege nit ki du ko takk mukk li fekk moom amut ah, bu si nekk nag ay at ay atam la duñ wax at yi waaye bu si nekk rek ah, bu ñu la laajee say at daal ba nga xam ne yow mi at nga am yu toll noonu soo ko sañee takk nañ la sañ koo takk soo ko suñu takk dañ la sañu ko takk waaw ayca mi ngi noonu tey nag moom lañ fi daal di daloon di Serigne Ass Mbacké moom nag kenn dootu ko présenté waat ndax wax dëgg fa yàlla Mbacké Mbacké pire la te doxewu ko waxewu ko euh, di ñëw ci li nga xamante ne moom mooy dimbale doomu aadama yi yàlla doon koo ne def ko def ko koo ne nag euh, dafa woyof li nga xamante ne moom mooy wàllum ñaan mi euh, Serigne Ass nag dañuy dugg ci ne moom mooy cabinet gis ni wax dëgg fa yàlla nit ñi safoo nañ bëgg nañ ko lool lool lool lool Daaru Salaam santé ak ak garabam yi bëgg nañ nga ñëw ci ñu si faram fàcce benn par benn nga ñëw ñu si Daaru Salaam wàllam santé ak garab waaw euh, ñu ngi nuyu euh, mboolem ñu ngi seqal liggéey bi waa Darou Salaam santé waa Touba santé bi ñëpp rek ñu nekk si groupe bi WhatsApp bi ak ñi nga xam ne ñu bokk ñoom lañ bokkal liggéey bi ndax ab liggéey liggéey bu toll nii kenn den mu kenn den mënu ko waaw te daa doon loo xam ne daal ñu ko seq bëri na ñu ko seq bëri na garab yi nag day garab yoo xam ni maanaam duñ ko présenté kenn koo gis nii na ko ñam ko ba noppi xool. waaw waaye garab la yoo xam ne daal moom bari na ay façon ay façon yoo xamante daal bu su moom dogalee ba nit ki am jàngaro booba maanaam jëfandikoo ko incha allahu taala dina dina taw feex waaye nag bëri na ay façon garab bu si nekk ak la mooy jariñ ak bu si nekk aw turam. waaw ci li nga xamante ne moom mooy garab yi ak produit yi euh, dañuy tàmbali ci li ne moom mooy hémorroïde. Euh, ba pare wax ak mm-hmm. moom mm-hmm. euh, bii moo siy dox bii. waaw bii moo siy dox moom moom euh, si hémorroïde lay dox ki nga xam ne son dogal am na si loo xam suñu ko doon yaatal fii vidéo bi maanaam day day jël temps waaw waaye hémorroïde moo xam bu bu mu si mën di doon wala sa biir def ballonnement ngelaw wala ngay seere wala nga gis ni ñàkk appétit yooyu yëpp ne bu son dogalee maanaam ba nga am garab bii nii di ko jël comme ni nga ko waxee ba traitement bi mat waxuma la wér waaye da ngay day dañ dañ si yow incha day dañ si yow te hémorroïde li mu mën a gàllankoor si nit dafa bëri rawatina góor rawatina te ñëpp lay gàllankoor ndax ni muy gàllankoore góor gi ba mu ba mu tëlee noonu lay gàllankoore ku jigéen ki ba ba ba mu tee noonu lay gàllankoore ku jigéen ki ba nga xam ne buy buy sëy sax du yëg bànneex moom nga xam ne bànneex la war doon waaye ab coono lay doon si waaw ndax aw métti lay doon kon loolu hémorroïde moo koy def hémorroïde nag fi ne ñim dal bëri ñim daal bëri na fi ne nii coow wax ci wax ji fi ne nii suñ su mbokk sëriñ si la nga ëpp ndax ñoom ñu bëri si sëriñ si léeg-léeg am na ñoo xam ne wax dëgg yàlla dañuy toog liggéey yow kurus toog lu ma am daanaka toog lu ma trois de temps kooku nag mënoo koo saxee mënoo koo saxoo mukk te hémorroïde du la gàllankoor waaw kon bii daal moom mooy mooy bi nga xam mooy dox si si hémorroïde ku si bëgg amit incha allah taala boo kii rek ñu ñu ñu jot si incha allah <laughs> waaw waaw ah. bii moom euh, moo yëngal jamono ji saf-saf bi waaw saf-saf bi waaw bii moom mooy yëngal jamono ji waaw jamono ji nag daa toll foo xam ne mooy dama hmm. na eh, xaw a suufeel communication hmm. ko wax nit ñi bii nii mooy boo xam ni képp koo xam dafa gaaw a hmm. a daanu maanaam koo xam ne góor goo xam ne dafa dafay maanaam am na sa loo xam bu ñu koy wax ndax dañuy jàngale dañuy jàngale waaw waaw koo xam si defal mu waaw na jël bi xool waaw na jël jël bi xool képp koo xam ne maanaam maanaam day sax day gis day gis xale bu jigéen muy dox sax mu yëg boppam na jël bi xool waaw képp koo xam ne afa am jafe-jafe yi man yu maanaam jafe-jafe yi ngóor a daal na jël bi am na beneen nag boo xamante ne moom si côté man yu kese lay dox moom waaw waaw ma ne la waaye bii moom boo ko jëlee incha allah taala am na vitamine te it macha allah te it amul benn effet secondaire ni nga koy jëlee moom amul benn te gàncax yi ñuy ñuy lekk yi nga xamante ni amul benn jafe yooyu la waaw waaw moo nekk nii waaw waaw moom mooy saf saabu bi <laughs> waaw bu li nga xamante ne moom mooy maaxi bu sifaay moom moom gërëm googu moo xam naa xas lañ ko ko dippee waaw mooy li ma la wax léegi ne la ñun moom suñu lépp si sëñ Tuubaa lay dox waaw lépp dañ ko delloo sëñ garab gi dañ ko delloowaat sëñ bi ma mm-hmm. waaye bu sifaa yi mm-hmm. waaye sifaa yi day loo xam boo xam ne moom moom ku dim kuy dimbali nit ki la kuy dimbali nit ki la mm-hmm. moo xam si côté stress wala moo xam koo xamante ne masalan day day day day day day am jafe-jafe fatiguement général koo xam ne day yëg-yëg yaram wi metti te xam lu ko sabab yooyu yëpp maanaam bii nii bu koy jël insha allah taala maanaam dina gis ak soppeeku mooy koo xamante ne maanaam dafa dem ba maanaam comme masalan comme xam nga fi ne nii léeg loo sax rab dina koy def waaye lu ëpp si góor ñi tawat la waaw mooy eh, sa xel du nekk si soxna du nekk si jigéen daal te am na góor ñu muy dal am na góor ñu muy waaye bii daal moom ñeen fukki jànkooro ak ñaar yoo xam ne da koy saafara mu waayu sifaay bii nii un la ba douze maanaam bii ni mooy un bi mooy un bi bu si nekk la am na may faj bu si la may faj bii mooy un bi bii mooy première bi première la ba ba douze waaw ba 12 la waaw bu si nekk daa am lu faj te amul benn effet secondaire incha allah taala ku koy jëfandikoo yow yaa dem ba gis sa bopp am na si xam ne su ko wax lii nag ku mu gëm ku gëm baax na ku gëmut it nga dem xool la nga gëm rek. dëgg la waaw. ayca bi nga noonu Serigne Ass Mbacké wax na te set waa Europe xam ne moom mooy xam ne mu bii moom Hamdal Kasiran mooy sant gu bari bii moom mbooleem waa mbooleem ku ko jël yaakaar naa di ñu sant ba bari na ñoo xam ne dañu ko jël sant ba seen seen i tuur si si waaw bii moom man nga daanaka si lépp lay dox moom maanaam benn ki nga xam ne dafa am jafe-jafe yi man yu wax naa la ko léegi si bële waaye bokkuñu bii ki nga xam ne góor gi nga xam ne dafa am dafa dafa dafa maanaam am na góor a maanaam lépp ma ngi dox waaye day gis ne daa ñàkk njaboot wala jigéen ñi nga xam ne am na gu am am am am mi ngi lépp nga dox moom itam moo xam moo ñàkk njaboot nga xam ni am nay euh, comme nii ko niñ ko baaxoo xamee waaye mu gis ni ñàkk njaboot buñ ko xoolee du rab garab gi lañ lay jox buñ ko xoolee te rab defu ko garab gi lañ lay bu dee rab da koy def nag ñu ñu ñu jëlaa si beneen yoon ndax yooyu ngay gis yooyu léeg-léeg rab da koy def bi sege bii nii maanaam koo xam day tuur ndox muy metti muy metti ndax bëri na ñoo xam dañuy tuur ndox da gis ne day metti wala kuy tuur ndox mu tuur ndox mi di tàng wala ngay gis ni ngay tuur ndox tuur ndox mi di dagg wala ngay gis ngay tuur ndox tuur ndox mi di yéex a ñëw wala ngay gis booy tuur ndox muy doon deret wala illaa boo tuur ndox ba noppi deret di génn jëlal bi xool jëlal bi wala nga manqué vitamine moo xam vitamine C la wala nga am problème boobu buy metti ndax loolu manqué vitamine C moo koy def wala nga am maanaam masalan ñàkk appétit ñàkk a lekk mm-hmm. jëlal bi xool incha allah taala mm-hmm. boo koy jël moom incha allah taala yaay dem ba gisal nii mu tuddee xam nan kasiran gii mm-hmm. nga xam nan kasiran si ngay sax suñ sañoon ak julli ñëpp sax si am xam nan kasiran mooy cant gu yaatu cant gu bëri fu ñu toll fu ñu toll fu suñ sañoon daal fu ñu toll nit ñi di sant te looloo moo waral ñu moo fas yéene moo waral ñu fas yéene indi nit gi ngir ñuy sant xam nan kasiran bëgg nañ daal ku ñu dajeel muy Moussa Sy hamdan kasiran mm-hmm. waaw loolu daal lañ fa séenee mm-hmm. incha allah taala waaw léegi nag garab yu bëri na mm-hmm. yi nga xamante ni mi ngi fi bëri na na lool waaye euh, comme que mbirum kii la télé la am na si maanaam day day day day jël temps bi waaye daal nañ xam ni daal képp koo xamante ne daal su moom dogal na tawat joo man di am bu su moom dogalee ba ñu déggante si ñu xam sa tawat dinañ la garab sàngam nga war a jël moo xam waa bi si a doon moo a moo xam saf-sapp be moom tur wi rek moom we kii na wax ji wala am nan kasiran bi wala garab imul wala boom mu si mën di doon mm, euh, incha allah taala bu soon dogalee bañ déggante si incha allahu taala yow yaa dem ba sant sa bopp xam leen kese nag dina yaatu incha allahu taala waaw incha allah ay ci mi ngi noonu waaye sëñ bi nag du ñu génn ci garab yi balaa ñuy ñëwaat ci garab yi ndax dese nañu euh, faa ñu dugg ci waxtaan li nga xamante ne moom mooy wàllum politique ndax jamono ji euh, ñu ci baari yenn ci kilifa yi euh, gis naa sax kenn benn maara bu génn nii yenn maara dañ ci utee buzz maam ki nga xamante ne moom mooy Ousmane Sonko nan nga gisee léegi maara yi nga xamante ne ñooy jug rek dëgmal ki di dama ne wax waaye nag dañoo dañ di ay sénégalais dëkk si réew mi kon bu ñu si waxut te donte kenn nit la sax wala donte ñaar nit la sax ñu ngi déglu suñu ndigal bu ñu waxee bàyyi leen ñu bàyyi suñu waxee jàpp leen ñu jàpp kon nag euh, dina am loo xam ne ko si yaatal maanaam bu dee suñ domaine moom mooy suñ côté mbokk muy sëriñ si moom la ma waxoon rek si euh, benn vidéo ma ne leen Sëriñ Tuubaa de ma waxoon wa may zaarikum hunaa fii sim yakunu saadu xadaa fii sullihim daane buuri àddina yi képp ku bokk ak ñoom seen seen tedd nga fii si àddina ëllëg yaa bokk ñoom seen bugal ma te loolu sëriñ su bari jàng nañ ko te fi ne boo leen waxee buur yi daane waxutoon nguur buur buur njëkk yi la wax te buur yu njëkk yi ñoo yam kon bu si ab sëriñ mënta ñàkk bañ a dugg na xam na mu siy duggee na xam na mu siy waxee bu si mënta ñàkk ba a dugg jamono ji ñàkk politique jafe na ñàkk politique jafe na ngir maanaam bëri na sëriñ soo xamante ni ndaw ñi ñoom la ñuy déglu waaye nag rek waay nañ fexe ba ba bañ a jël politique bii def ko maanaam muy muy mu muy muy looy dox doxal seen digg rek taalibe nañ xam ne taalibe yi jàppuñu leen ngir àdd dañ leen a jàppee ngir sëñ Tuubaa ngir ah, ah, ngir àllaaxira kon nañ leen fexe ba leen teg si yoon te bàyyi politique bi ñu nekk ak ñoom waaw politique ñoom man de du ma ne du ma de waaye su ma politique naa xam fa ma koy teg fa ma koy teg ama kii diw fee la far diw fee la far waaye ay nit saa suñ demee ba la suñ suñ bi laa doon wax ay suñu bokkee yàlla di wut yàlla dem bay xiiroo ko ngaay am na ku yàlla si ñoom ñaar te ay da nga gis ne jamono ji ñu toll nii waxuma la waaye suñ su su suñ mbokki sëriñ si da gis ñoo xamante ni sëriñ bi day koy jaral mu saaga sëriñ bi wala mu wax ko lu ñaaw te lépp lu te moom biir ko la muy wax du dëgg waaye fa mu ko teg mooy mbirum politique rek kii ànd ak man keekee la àndal kese kon nañ fexe nañ defaraat jikko yi nañ defaraat jikko yi lépp nag la ko waral mooy jikko yi yàqu rek ay jikko daal bu yàqoo dañuy wax ne jikko yi bu yàqoo société bi day yàqu bu société ko dal waaw ko dal ay jikko bu yàqoo société bi day yàqu te bu société bi yàqoo réew ma day yàqu Sénégal nag lu la waaye man di wax ku ko bëgg defar moo xam Ousmane Sonko wala ku man di doon ku ko bëgg a defar te te te te te te te maanaam masala fexewoo jik jikko yi defaru du yomb pour nga defar ko waaw nit nag maanaam man ngaa ñëw si réew mi baax lool doon as gor waaye pour nga liggéey réew mi day jafe ngir ñi nga seqal waa réew mi ñi nga séq réew mi loolu moo moo kon nañ fexe ba ñun boo ñun ñi nga xamante ne ñoo ñoo yoon responsabilité mooy ñi nga xamante ne benn am na njaboot wa sa njabootuk bopp wa ilaa ay taalibe wala ñoo xam ne déggal nañ la sa côté famille na ngay fexe ba di leen teg si yoon di leen si yoon yar leen si yarul islam waaye itam yar leen si dignité yar leen si ngor waaye itam yar leen si fullaak fayda ak jom ndaw loo xamante ne fa nga war a nekk nekk nga fa am na yenn jot yoo xam doo ko am sax woon naa bay wax la ñu di ko def waaw Mmh. ayca mi ngi noonu waaye nag dañuy dugg ci li nga xamante ne moom mooy wàllub sëriñ yi ndax ñoom kat euh, bari nañu jamono ji dañoo yàq seen milieu bi ndax ku nekk nga génn naan maa mën ku nekk nga génn naan maa dàq faj mmh. waaye yow ngay kilifa mi boo waxee ñu daal lay dégg ngay kilifa ci réew mi ci li nga xamante ne moom mooy boo waxee ñu daal lay déglu di Serigne Ass Mbacké wàlliwu mmh. euh, nan nga gisee nan nga jàngatee maala yi nga xamante ne léegi dugg nañ seen milieu bi maanaam dugg nañ seen métier bi euh, commencé ko yàq ba yéen yeggaay sax boo waxetee sax dañ naan puusal ñoom ñu payam waaw moom li ma la waxoon léegi rek man moom du ma weddi kenn du ma xalab kenn ndax liñ suñ tubaab dañ ko tere nee na naka euh, jëwanteeg waxante lu ñaaw daa bokk si gën gaa boni mbir kon ñu moom duñ weddi kenn duñ wax kenn lu ñaaw waaye nag daal moom ak sëriñ moom deesu ko xëcc deesu ko xëcc de deesu xëcc nit ñi jëruñu naan maaman maaman am nga droit nag euh, am communication parce que àddina loo mën di gis ñaari moo ko war mooy organisation communication àddina loo mën di gis koo gis mu réussir mm-hmm. si ñaar yoo réussir moo gis mu gën a réussir moromam da a réussir mm-hmm. communication bi ak organisation communication bu jàllee organisation bi communication mooy convaincre nit ki mm-hmm. ba nga yor nii donte xamu ko sax mu bëgg ko ba tax mu jëfandikoo gis si gis si njariñ sama garab bi euh, bu ma xamu ko ma communiqué moom ba mu gis garab ba mu bëgg garab bi bi kon communication laa ko laa ko jaayee mu ko garab gis si njariñ léegi nag kon moomoo dina tax maanaam kon lan la ko amee communication waaye nag su dikkee su moomoo ñëwee nag lu may def organisation lay àndeek moom mm-hmm. organisation kon sëriñ bu si nekk sañ ngaa communiquer waaye nañuy fexe ba nañuy moytu xuus si mbirum suñu borom mm-hmm. yàlla nag moom li may far di wax sénégalais dañoo jàpp dañoo dem ba jàpp ni maanaam ndax loolu lépp ñun ñoo ko waral mm-hmm. suñu borom de ku mën a xamal doomu aadama lay xew suba la wala la si képp ku naan suñu moom du xamal doomu aadama lay xew suba xamoo da xamul waaye wallaahi na tam borom kuy xamal doomu aadama lan moo waral sénégalais gëmul ni yàlla dina xamal doomu aadama lay xew suba mm. wallaahi na si yàlla da koy def waaye ñi mu koy xamal ñoo ko dud wax mm. waaw ñi mu koy xamal ñoo ko dud wax waaw li li lay suba suñu borom dina ko xamal doomu aadama waaye doomu aadama yi mu koy xamal ñoo ko dud wax ndax suñu borom kat du denc sekkareem si ab kat du denc sekkareem si ab saamkat sa saamkat euh, sekkareem si si si dëkk bi kon rikk waaye nañ fexe ba xam ni ñuy doxe ñun xam ne daal sañ nañoo indi ay garab di garab yi lii lay faj wala sañ noo dikk wax ak doomu aadama yi sañ noo dikk jubbanti leen waaye amaa nag jël place suñu borom wala amaa ñuy xeebante suñu biir wala ñu jëwante suñu biir loolu moomoo nañ ko moytu waaw loolu daal maa ngi ñaan sëriñ sépp ñu moytu ko ndax sëriñ si nii nga xamante ne moom la politiciens yi di defee ay mouvement di ànd ministère yi di ko def kon sëriñ si lu tee ñu def ay mouvement ànd ñoo bokk bile ndax xanaa ñoom euh, ngir jàppale doomu aadama yi waaye duñ ko def ngir jàpp ne fi ne bëri na sëriñ soo xam ne fi ne nii duñ dem seen kër seen moromu say muñ miinut ndax jàpp nañ ba demee mystique topp leen fa wala nangam te loolu lépp jafe la lu ko waral muy jikko yàqu jikko yàqu kese ko moo ko waral waaye wallaay la si man de bépp sëriñ boo xamante ne woo nga ma ñu ñu am bëgg ñu am relation wala bëgg ñuy jëflante wala na si noppi naa ndax man ñëpp dama leen jàpp ngir jëm sama jëm ngir jëm jëmmi suñu Tuubaa ngir jëm suñu borom subhaanahu wa taala ku ma dajee ku ma gisit jëmmi yàlla jalaa gis yow waaw jëmm yàlla jaay kon nañ sant yàlla doomu aadama da nga koy jàppe ngir lan ngir yàlla mi ko bind waaw nag ngir yàlla mi ko bind man ku may bañ it lañu suñu tubaab waxoon rek koy jàpp jàpp ko ngir yàlla waaye koy bañ bañ ko ngir yàlla man daal ku bëgg yàlla ma bëgg la waaye ku bañ yàlla ma bañ la waaw ku bëgg suñu tubaab ma bëgg la ku bañ suñu tubaab ma bañ la man noonu laay doxee moom waaw waaye nag kon nañu jëppale jàppalante suñu biir te yërëmante tey jàppoo doon benn loolu daal maa ngi koy ñaan suñu mbokki a jàppoo bari na yenn heure de communication yi am yoo xam du am si côté sëriñ si waaw nit ñi yi nag moom lii xew ni nga xam ne ko sëriñ bi ñu dagg ko yóbbu la waar loolu lépp heure communication la heure de communication la waaye képp ku ku yóbbu waar nit nga xam ne ëllëg yàlla dina la yóbbu waar képp ku yóbbu waar nit ndax yow ma ka sëriñ bay wax wax lu wax wax lu amut nga yóbbu ko waar na nga xam ne yow ëllëg di nga wax loo xamante yow bir na ne yow yaa yow yow mi ko dagg yaa ko dàq wax lu dëgg te ëllëg yàlla dina la yóbbu waar waaw kon nag ndokk waaye kon ñu yóbbu waar si jamono ji nañ xam ni nañ sant yàlla te xam ne yóbbu waar àddina kër moo gën yóbbu waar àllaaxira waaw yàlla sàmm ñëpp barkeel leen sëriñ sëpp mi ngi noonu jërëjëf euh, sëriñ As euh, Mbacke euh, wàll wax dëgg fi yàlla kontaan nañu lool ci li nga xamante ne nag moom la ñu seexoon ak yow muy waxtaan wi mm. rawatina nag ci li nga xamante ne ci ngay yëngu muy wàllum paj ak ñaan yàlla mm. lan tàggatoo ak lan ngay nuyu di sant rek di leen sant yéen tamit di leen ñaanal di rafet lu baax si yaatal kii nga xam ne moom ngeen di yaatale xam-xam di am mbégte bu baax it si teewaay gi ngeen teew si daala ji ndax lii ñun la waroon ñun ñoo waroon a jóg yëkkat suñu tànk ñëw seen kër ngir maanaam ñun moom dañoo bëgg xam-xam bëgg koo xam ne képp koo xamante ni yaa ngi koy yaatal wala yaa ngi si yëngu dañ lay fonk tey dañ lay bëgg waaw kon daal ñi ngi ñaan fépp foo xam ne ñu ngi fay dégg euh, ab télé dañ leen fa dégg waaye do fépp foo xam ne ña ngi fay dégg ma communication àgg na fa yàlla ngeen fa njëkk àgg waaw lu yàlla mu day séddale kese te ñiy góorgóorlu kat lay jox kon ba comme que yéen a gis di góorgóorlu gëm leen ni suñu boom dina dina sottal lépp bis tagga di ñaanal Sénégal jàmm ndax yooyu ñoo ko seq ñun moom faruñu fenn fañ far daal mooy dëgg du du Ousmane Sonko du Macky Sall fañ far daal mooy dëgg waaye mi nga xam daal moo jiite réew mi na xam moo ko mën a jàggal mu jàkk na xam ne réew mi moo fi mën a sotti jàmm mu sotti jàmm mu mu am jàmm kon na na na fexe ba yërëm yërëm askan wi te sotti si réew mi jàmm bu dee Ousmane nga xam ne mooy wut doo ko wut fexe ndax doomu aadama kay buy wut dara war naa yoot muñ ba am la lam bëgg saa soog amee na nu ko neex mu doxalee ndax Macky Sall mii kat ba muy wut réew mi 2012 koy wut ak dal la ko wute woon ak ak doylu waaye tam ak dégg ndigal waaw Ousmane Sonko nag moom wax dëgg fa yàlla maanaam na fexe ba maanaam lii nga xamante yii ñu koy def yëpp du dara doomu aadama loo bëgg day jafe na ku bëgg lu toll nim réew lii ñu ko def nii lépp daal du dara tey loolu lépp day firndeel ni ëllëg kon lii mu wut nii na si rafet njot ni xam ne dina ko am. xam ne dina ko am ñun nag duñ ne diwu fi yeefin na du ne diwoo fi def nanga waaye nag nañ xam ne ñoom ñi nga xam ne ñoo séq réew nañuy waxtaan seen biir te xam ne ñoom ñëpp benn lañ. man jàpp naa ne ñoom ñëpp liñ bëgg mooy maam réew mi avancé réew mi am jàmm. kon nañu fexe ba nañ nañ àndaloo doon benn man su ma soñoon suba suba Ousmane Ousmane Sonko Macky Sall nuyoo jox joxoo loxo am na ñoo xam ne loolu arrangé wu leen. Mm-hmm. am na si ñu nekk si réew mi ñoo xam ne Ousmane Sonko ak Macky Sall am jàmm arrangé wu leen waaw. kon ñoom si jëmmam ñoo war a xam ne que Sénégal gii ñoom Macky Sall ne nekk judduwul lu yàgg Sénégal di am te day deelu yàgg Sénégal di continuer am Ousmane Sonko judduwul lu yàgg Sénégal mm-hmm. ñun ñi fi nekk juddu judduñ lu yàgg Sénégal am te dañuy deelu yàgg Sénégal di continuer waaye rikk waaye nañ fi bàyyi wooyu rafet mm-hmm. moo xam si man la moo xam si politicien la moo xam si ku man di doon te sëriñ si nga xam ne ñoo war a wax nañu wa wax ak ñi ñu war a wax réew mi nag la ma naan wax rek ñaar yi moo ko yàq ki war a wax ki war a wax waxut ak ki nga xamante ne wërta wax ba noppi di wax waaw ak ki nga xam ne war naa wax war naa wax tuuti wax lu ëpp lii moo fi ne koo gis jamono ji day mel ni wax ji bëri na lool waaye nañ fexe nañ fexe ba sax si luy indi jàmm sax suñ duggante suñ borom di xool nu ñuy jàppalante suñ biir te wallaahi naa sim suñ yéenante jàmm jàppalante lépp dina sotti insha allahu taala yal yàlla defal leen jàmm moom moo suñu xol sedd na yaa gaa yi nga àndal yëpp yal yàlla barkeel leen lépp loo xamante daal nit bëgg na ko te diisuñu ko yàlla na suñu saafara ko barke ba alquran barke ba xasida yi barke suñ tubaa jërë ngeen jëf